internationale. lool si ci suñu youtube ngir saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. internet yi ñuy bàyyi xel ñu leen di nuyu fas yéene defal tënku xibaar ñu tàmbali kook xibaaru biir réew mi. njiitu réew mi Macky Sall démb nag bi muy jiitee li nga xam ne moom mooy conseil des ministres xamle na ne nag. njëgu gerte gi ci campagne agricole euh, bu deux mille vingt deux bi euh, dinañ ko yóbbu ci deux cent soixante quinze francs muy prix euh, au producteur bi loolu nag day ëppee juróomi dërëm li nga xam ne moom moo nekkoon njëgu daaw bi nekkoon ci deux cent cinquante francs CFA li nga xam ne nag moom mooy campagne agricole bu deux mille vingt deux deux mille vingt trois dinañ ko ubbi le vingt et un novembre. Ousmane Sonko ba sub tey bi nag euh, amalaat na ab euh, conférence de presse moom nag euh, nee na jot na déposé ñaari plainte jëmale ci nga xam ne moom mooy Serigne Bassirou Gueye nekkoon fi procureur de la république moom nag nee na li ko waral moom mooy Serigne Bassirou Gueye dafa falsifié procès verbal bu enquête dossier bi nga xam ne kon moo nekk ci diggam ak kii di Adji Sarr mu ne nag ñaari plainte yooyu mu ngi ko déposé Euh, cour suprême ak nag euh, inspection générale des affaires sociales muy IGAS ba léegi njiitu réew Ousmane Sonko nee na nag lii di nemmeeku tour bi mu doon amal euh, ëllëg dina ko wéyal te nag nee na dara mënu ko koo teree def mu ne armée bi sax buñ ko wàccee ngir aaye ko ko du tere kon dina amal boobule nemmeeku tour coordination des associations de presse muy CAP ñoom nag amal nañ kon ab conférence de presse sub tey bii ngir laaj ñu libéré kon ki nga xam ne moom mooy Pape Alé Niang di seen naataango journaliste boobu nga xam ne kon dañ ko teg loxo démb sax kon nañ ko man mandat dépôt kon mujjee nañ ko yóbbu kaso ci mbir moomu ñu koy toppee ne daal dafa publier ay kayit yoo xam ne kayitu armée la te sax amul ca li nga xam ne moom mooy euh, ndigal ñoom nag ñeneen dinañ def ab mobilisation bu mag boo xam ne daal dinañ ca ŋàññi li euh, nga xam ne kon moom lañ gisee ne kon liberté de la presse daal dañ dañ ko menacé fii ci senegal sàkku ca it ñu bàyyi ci lu amul daal benn ndëgëndëgu ki nga xam ne moom mooy Pape Alé xibaaru Afrique benn ponk lay doon euh, muy nag euh, ca Tchad foofu nag opposant bi ñuy woowee succès Masra nekk nag leaderu parti les transformateurs moom nag dafa daal yebal ay avocat fële ca Baro fa nga kon fa nga xam ne moom mooy cour pénal international daal déposé fa ab plainte kon ngir nguuru càdd nga xam ne kon takk der yi ñoo ko jiite ñu déglu leen daal ci mbirum manifestation boobu amoon fa le 20 octobre bi weesu te sax ñu bëri ñàkkoon seen bakkan lu ko jiitu sax moom moomu succès Masra ak Max Lowal Ngaar nga xam ne ñoom ñooy ñaari euh, opposant yi fa gën a fës daal euh, ñoom nag nee nañ nekk nii nag dañoo ragal ndax seenu ba kaaraange ba sax bu ñuy dañuy làqatu ngir ñu bañ leen a fexeel xibaaru sport lañ koy jeexalee démb nag Sénégal mi nga xam ne moom mooy dalal vingt cinquième édition bu CAN handball ci jigéen ñi ñoom nag ñoo dóor dóor yi métti ki nga xam ne moom mooy euh, équipe bu Madagascar score ba sax toll ci 31 point decar ndax Sénégal 40 la am ñii di waa Madagascar am 9 kon gaynde yu handball yu jigéen ñi jaloore jooju lañ def euh, euh, démb ci ubbite kon kan féminine bu euh, handball site francais bii di l'équipe te ñu xam ko nag ci wàllum sport ñoom nag démb dañoo joxe xibaar ne kii di Sadio Mané daal euh, forfait na maanaam euh, du bokk ci li nga xam ne moom mooy coupe du monde 2022 gannaaw bi mu amoon ab gaañu gaañu ci équipe am Bayern ba muy football ak Werder Bremen ñoom nag dañoo dikkaat sax ci boobu information weddi nañ nag seen bopp ndax li ñu waxaat moom mooy boobule forfait officiel agul information boobu nag ñu bëri ci àdduna euh, reprendre nañ ko ba mu sax indi woon na ay euh, wax yu bëri diggante démb ak léegi wante nag ba fi nekk nii daal euh, amagul information bu officiel boo xam ne dafa jóge ci Bayern wala sax ci fédération sénégalaise de football jëm ci boobule forfait bu ki nga xam ne kon moom mooy suñu joueur boobu di Sadio Mané lii la ñu leen tey ci xibaar seen teewlu ñu tax daje ëllëg jàmm